Abdoulaye Bop lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax a baax euh, yegsi nañu nag ci li gën a fës ci bopp ñu xëyndoo tey jii dañ koy tàmbalee ak Walfadjri quotidien ma ngoog euh, Walf quotidien mu ngi ñuy dëgtal nguur gu bees bi ci kilifteefu Bassirou Diomaye fay nomination yi nga xamante ne moom lay ama ba léegi yéen a cabinet officier supérieur daanaka bëri lañu ci euh, ministère yi nga xam ne moom la jot a taxawal waaye nag yemu fa ci seddalem jiw engrais bi daanaka armée bi tax na ci rip ndax ñu bëri ci ñoom jot leen faa jox ndombal tànk ngir ñu euh, saytul euh, séddaleem googule yenn kaabi bi projet Pastef gañ doon tuddu mu naa doon wala boog du doon euh, projet goo xamante ne projet militaire lay doon ndax militaire yi bari nañu lool ci ndombol tànk yi nga xamante ne moom la nguur gi jëm lu jëm ci wàññi njëgu dund gi ndax dina mun a doon yombam déet waaye nag wàññi ko mun naa doon dëgg sërëx ci nguur gi yéen a kàddu moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk Walf Quotidien ñu ñëw ci le quotidien euh, bi nga xam ne moom itam am na lu ma xëy fasal ci xatamu njëkk ma cay seen euh, turuk jëwriñ ju njëkk ji. man ngoog euh, di Ousmane Sonko mi santaane woon ca SOSEPA ñu fexe ba gëstu bilan kër yi nga xamante moom la état moom ak suuf seek na mu demee yéen cabinet gannaaw bu mu ko sasee gars yi nag gars yi gëstu nañu gis ne ay jege ñaale nguur gi cëru nañ ci yooyu le kër ak suuf si yéen cabinet di le quotidien ne ba ba léegi Ousmane Sonko nangootu cee wax daanaka def yéen a kaab yi di ñu ñëw ci yor-yor quotidien lan la fasal ci xatamu njëkk. Eh, coowal suuf gi ci diggante eh, QVS ak eh, Nouvelle Ville daanaka lañu ñu loon QVS la ñu fab jox ko waa Nouvelle Ville ndax dañoo gis ne ay jegeñaale njiitu réew ma woon di Macky Sall ca nguuram yéen a kaabi yor-yor gi gis ne nguuruk Bassirou Diomaye Faye war naa mun a gëstu googu lépp dossier. ñu ñëw wax nag ci le mandat. ganuk opinion ci le mandat di Amadou Ly Akile bokk ci coalition Diomaye président xam tamit gouverner. ne doonul euh, da ngay saytu ay équilibre ak yeneen ak yeneen bàyyiloo na xel nguur gi fi ne waaye nag sàkku ci askan wi euh, ñu ànd ak dal xamle euh, yokkuteeg yeesal yu bëree bëri daañ ko ci amal ngir mun a réew mu Sénégal mu ngi ci yéen caabi di la mandat. ñi ñëw ci réew mi quotidien réew mi quotidien mu ñu dëkk déclaration Ousmane Sonko mi yekk lu mel ni xeme Emmanuel Macron fan yële ñu weesu ci nganub Mélenchon waaye nag mel na ni Paris tontuwul ndax bëgg ñu amal dañuy bañ provocation ak tontonteeg yeneen ak jàpp ne na premier ministre Ousmane ko fexe ba saytu ak sàmm wàllu diplomatie diggante Sénégal ak euh, France. Sud Quotidien euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal euh, nganam ga ca Fiara nga xamante ne moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ma nga foon xamle ne bu ñu bëggee suqali mbéy mi faw ñu toll ci béy dundee te loolee nguurug Sénégal dina ci béy waaram ay kàddoom ci Sud Quotidien. ñu ñëw ci vingt 24 heures ne nguur gaa ngi ci guddi gu T7 ci jamono ji. ndax tabaski gaa ngi ne këtt ne jonn campagne gerte gi daanaka nuyoo si mbënd mi bu ñu deful ndànk mun ngi am ci atum ren ji yéen cabinet ñetti jafe-jafe yi la ñoo tënku euh, ci euh, bopp nguur gi ci jamono ji yéen cabinet ci waxtu joo xamante ne popo ngin doonoon télé bi yoonu chrétien yi euh, foofee nag archevêque bu Ndakaar wu yëkkati ay kàddu sàkku ci nguurug Basiru Jomaay Fay mu fexe ba taxaw ndaw ñi mu am ci lu ñu tee na jublu itamit ci wàññi njëgu dund gi leneen ci xibaar ci 24 heures ko càkkuteefu Guy Marius Sagna mi xamle ne bu sañoon ñu tas tasar assemblée nationale ca na mu gën a gaawee eh, xibaar geneen ca bitim réew Iran moom njiitu réew ma ñàkk na bakkanam ci accident hélicoptère eh, ci jamono ji nag CPI sàkku na ñu teg loxo Netanyahu ca na mu gën a gaawee ndax dañoo gis ne dafa bokk ca la sabab eh, fitna googe ca bande de Gaza mu ngi ci yéene kaa bi di 24 heures. las yéene ba jaxate lay wuyoo activiste la jot nañ ko teg loxo ndax kàddu ya ñu ne dafa tegginewul mu teg Ousmane Sonko ba tax na démb lañ ko teg loxo mooy ki ñu njëkk teg loxo nag eh, ci eh, nguuruk eh, basiru Diomaye Faye moom Bah Diakhaté bokk ca nguur ga woon doon activiste mu ngi ci yéen a di laas Dakar Times ci wàllu mbirum góor jigéen bokk na ci li ko daaneel ndax kaddu yi mu yëkkati jëm ci mbirum góor jigéen te mu jot cee wax lu mel ni xeme jëmale ko ci Ousmane sunko premier ministre moom Bah Diakhaté jot nañ ko teg loxo waaye dafa gis ne du tontu fekkee avocat teewul yéen a garde à vue yéen bi moo ñu ko yeggee ci euh, xët jëkk moom Dakar Times. turbine yéene kaay. turbine xëy dañu dégtal coowal góor jigéen ci réew mi euh, te moo ne de njiitu réew ma woon Macky Sall xamoon na ne mukk duñ ko fi daganal euh, pare wuñ ko Ousmane Sonko jàpp ne tolérance daal mun na caa am bokk na ci tamit kàddu yooyu nga xamante mu ngi tukkee ci njiitu réew ma woon Macky Sall. ak Ousmane Sonko moom la yéenekaay bi xëy teg ci balance bi du ñu fàttali ay kaddu njiitu réew mi ay kaddu premier ministre Ousmane Sonko yam waxoon 2012 ba laata ñu yegg si fii tey yéenekaay bi ne tabaski gi yegg si na xar mun naa jafe lool mun naa cher lool ba tax na dina doon tabaski gu metti lool ci góorgóorlu yi mu ngi ci yéenekaay bi di euh, turbine. Le Soleil yéenekaay Le Soleil Mouhamadou bi tey ma nga woon ca euh, Popenguine mi doonoon seleb yoonu euh, chrétien yi ngir amal Pentecôte foofe waxtaane nañu jàmm ak bokk na ci moom monseigneur Benjamin Ndiaye dikkaat itamit xam le ne réewum Sénégal nañ ko sàmm ci wàllub yoon sàmm ko ci wàllub jàmm bokk na ci tamit ne daañu def seen kéemtalaay kattan ba fexe daal ba loole ñu mun cee béy seen waar bokk na ci soññaat na ndaw ñi ñu fexe ba muy tandiku réseaux sociaux yi lañ cay wax ak yeneen yeneen bokk na ci tamit li nga xamante ne mooy euh, recours ak euh, li nga xamante ne mooy rapport Cour des comptes yeneen rapport yu fi jot a baax na lool ñu gëstu nañu dénkoon réew mi euh, démb waaye nag euh, nañu amal audit euh, mu soxal suñu comportement ak suñu doxalin yemuñ ca fas yéene nañu itamit ñaanal ak gunge njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mi xam ne dina fexe ba lépp mun a yemb ca liggéey ga des ca sanctuaire marial bu Popenguine mu ngi ci yéen kaabi di la soleil. critique yéen kaay yéen kaabi di ne église bi wane na cofeel ga mu am ci Bassirou Diomaye Faye monseigneur André Guèye dikkat na ci jàmm ak itamit yoon gi nga xamante ne eh, ñaar yile bu matee ci réew rek mun naa doon yokkute ci réewum Sénégal bokk na ci Jean Baptiste eh, Tine moom xam le ne église bi béy na waar wu yaatu ci réewum Sénégal mu ngi ci yéene kàddu gi eh, critique euh, l'évidence l'évidence ne béy na waar wu yaatu ca horticulture gañ ko dénkoon euh, jiiteetu ko moom euh, Makumba Diouf docteur ma fekk baax ca laat menge yéene kaa bi ne jot nañ ko fa gàttandu jaajëfal ko ci jamono ji l'évidence ne njiital douane Mbaye Ndiaye ma ngay amal Mauritanie eh, ngir feggoog douane bu Mauritanie ngir xool naka la ñu gën a ñoŋalate ak i tamit dëgëral diggante ñaari réew yi mu ngi ci yéen kaay bi di euh, l'évidence. ñu dem ci stat yéen kaay. Prime League euh, bilan beek euh, na mu demee ci suñu gaynde Jackson ak Pape Matar Sarr mi ñu ne ca Europe Ghana yéen kaay bi stade xëy duñu ko dégtal ci xëtam bu njëkk 24e jëm ci Tëngéej mi ngi ne daanaka xaw na chute jaraaf moom jot na ci su sax ba jëmmalaat boppam ci Ligue 1 ñeel 24e journée bi yéen kaay bi di stade moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk. bu dee suñu làmp moom mu ngi ñuy dégtal euh, Doudou Sané moom jot naa jël revanche am euh, ci li nga xamante ne mooy làmp ji daanaka euh, poule B bi moo ca gagné moom dudu sànnee daane daanati na yéen cabinet kan moo nar daan ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine bi cabinet dikkaat na ci ci xëtam bu njëkk ci combat ga ñuy waajal mu ngi ci yéen cabinet yi nga xamante mooy suñu lamb. El Hadji Mouhamadou bi tey tënk la woon. ci xëtu yéenekaay daal waxal yéenekaay bi mu laaj ko yàlla suma borom kan moo fas yéene daal. waaw xam naa ne ku ci commentaire mun nga daal ndax fii ku ci commentaire rek yaa ngi wax lu la neex. Euh, waaye mbir daal ci loxo yàlla la. xanaa ñu jàpp ne ku juum daal. <laughs>